dal leen ak jàmm mbokk internet yi seen football TV nuyu naa leen bu baax si leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokki internet yi damañ indi émission bi ngeen taamu loolu bëgg ko muy rubrique découverte te rubrique découverte day dem fële ci France Ligue 2 wax si équipe bi di Caen ñu am fa benn bi national bu ñuy wax Noé Le Breton mën a football lool waaye dañuy seetaan générique bi te ñëwaat. mbokk yi amati naa mbégte lool andil leen émission bi ngeen taamu yéen a ko bëgg yéen a ko sopp yéen a ngi koy partagé di Rebloz découverte dinañ wax ne dama bëgg nag euh, képp ko xamante yaa ngi soo gis chaîne bi nga abonné ñi nga xamante ne yàgg nañ si chaîne bi ñu liké dem ci commentaire yi def que drapeau Sénégal wala ñu commenté si jour bi day gën a dooleel vidéo bi day gën a jox visibilité boy bi donc tey nag damay ñëw euh, doxantu France wax si euh, benn bi national bi ñuy wax Noël Le Brun parce que moom papa mooy français yaay ji sénégalaise moom moo ko wax am na deux cultures posé nañ question par rapport Sénégal mu ne Sénégal dëkk am comme France mu nekkee dëkkaam moo tax nag ma sawar ne pourquoi pas def ci moom vidéo comme ni nga gisee ni moom benn milieu terrain euh, euh, défensif la pour ñi nga xam le 22 avril 2004 xale bu ndaw la euh, donc taxawaay 1 mètre 78 poste milieu terrain défensif droitier donc moom muy débuté premier match professionnel avec Caen le 14 mai 2022 donc yàggul contre Rodez la donc signé premier contrat professionnel le 8 juillet donc année bi nemmeeku nañ ne joué na 33 matchs pour 3 passes décisives mu nekk un très bon jour. un jour, bu xamante euh, wa France woo nañ sa sa scène donc à un moment donné donc man nak de ma lire article comme quoi bon voilà il se voit bien au Sénégal je me suis dit pourquoi pas donc euh, ma attaché wu ce boy là parce qu'il a des euh, capacités assez intéressantes parce que boo que jeune quand même du côté de Ligue de française on te met titulaire je me dis que tu peux être l'avenir l'avenir nak moy ma me la ak si yeneen jeune yi ma fi wax yëpp yëpp et d'après samay c'est samay recherche yi ma def c'est un jour, bu xamante qui est assez solide Fall guerre c' est bu xamante voilà euh, ñenn ñi koy comparer ci ko xam day daw deux pour moi koy utiliser maanaam day coup partout et il est assez technique manam techniquement ni la roule et donc mon Ligue 2 française en 20 ans lolu moom moo tax ma sawar def ci mon vidéo donc euh, comme ni ma ko waxee donc ñun euh, suñu génération bi nek fi ci réew ñu formé leen fi ci réew franchement très talentueux très talentueux ñu gis ay joueurs yu dem ay Chelsea ay yu kenn xamul donc le mélange à chaque fois c'est sama vidéo yëpp di ma bàyyi di ko wax la force du Sénégal reste quand même les buts binationales ak ñi euh ci réew mi mélange bobu moy doole Sénégal donc et que concurrence bi lu mu gëna yéek mu gëna baax si ñuy juddoo fii gën baax si ñuy juddoo fële et kii si gagné kan la c' le peuple sénégalais c'est les supporters yi xamante ne ñoo ngi sétane donc concurrence fépp le baax ba tax na man donc bu ma gisee un très bon joueur ñu mën ko am légui légui ma wax si léegi-léegi moo gën fii lekk may xaar deux trois quatre ans mu nekk Lyon Marseille wala Lille ñu ne fi di wax di tardé suñu bopp loolu temps la léegi nga ko mën a wax bu fekkee intéressé na la moo tax suñu U23 war nañ ko andiwaat buñ ko dina ñu defaraat lu bëree bëri bëri si football sénégalais. donc mbokk yi li mu nekkoon rubrique découverte tey. donc euh, dama leen di bàyyi ci commentaire ngeen wax seen xaar ak seen gis si Noé dem si yeneen plateforme yi c'est très important mbokk yi que ça soit TikTok que ça soit Instagram bon tapé seen football TV incha allah da ngeen gis seen logo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen sur seen football TV.